wax la ci sa dund loo mosul gis wala loo mosul dégg waaye tamit nee na ma dina def noob wàllu noob moom yàlla may na ko ci vingt quatre heures maanaam benn bis képp mu jox la résultat yu leer waaye nee na am na cangatug njara cangatug njara googee nee na ku mu jëflanteeg ba noppi rek di nga ci am lu kawe sa njortu waaye nee na de am na ndombo goo xam ne ndombog njare la ñu koy wax ndombo googu nag nee na képp ku ko am dina la aar ba noppi ubbi say xéewal nee na yàlla tamit may na ko ci wàllu ñaan nee na wàllu ñaan dina ci yëngu rawatina wàllu këyit képp koo xamante ni am nga ci ay jafe-jafe dina la ñaanal ba noppi samp la nee na tamit am na cangatug rab goo xam ne bis bu leen yàlla boolee vingt-quatre heures maanaam benn bis képp di nga gis ay coppite ci sa bopp waaye butéel yi ngeen di gis moom la tuddee gaynde gu góor gi bii nag sunu mbokk góor ñi tan la ko jagleel nee na képp ku ko jëfandikoo di nga daw ñëw dolliwaat waaye nee na feebar yi yëpp yalla may na ko ci muy ndoxum siti hémorroïde diabète ak yeneen feebar yi nga xam ne sonnal nañu askan wi képp ku ko bëgg a gis nag ma nga ca cité Aline Sow waaye képp ku bëgg a jokkoo ak moom it numéro yaa ngi noonu ngeen di gis muy 78 475 27 82 ma baamtu ko 78 475 27 82 loolu la ñu mën a jotee Serigne Cheikh Ndiaye Njare nekk Serigne Lasrar bu yàlla baaxal. ñu door revue de presse bi dooree ko groupe Futur Média fekk fa record yéene kaay Karim Moustapha Benzema ak Kalidou Koulibaly la surnal bi fësal ca xët wu njëkk wa waaye surnal bi nag ci doomu Sénégal yi la ñëw weekend bii ñu nekk nag doomu Sénégal yu bëri du ñu football ak seen club loolu la journal bi xamle bu dee Kalidou Koulibaly keroog bi këlëbam di Chelsea di jàkkaarloo ak Real de Madrid ci la amoon blessure kon moom tey ji bu 14h jotee këlëbam di Chelsea di dalal Brighton match boobee doomu Sénégal bi du ca bokk muy Kalidou Koulibaly bu dee ñancoo Sadio Mané tamit këlëbam tey ji war naa football Hoffenheim la ñuy jàkkaarlool waaye ñancoo Sadio Mané du bokk ca match boobee ndax dañu ko aj benn match boo xam ne dina ko toog du ko football waaye Thomas Tuchel it wax na ci ñancoo Sadio Mané nee na kóolute gi nga xam ne moom laa amoon amoon ci moom dara wàññeekuwu ci ni ma ko wóoloo woon démb ak bërki démb noonu laa ko wóoloo tey jii waaye nee na Sadio Mané nag xam naa ko bu baax lépp lu ñu ko waxal defu ko ndax Sadio Mané nit ku baax la Thomas Tuchel moo yëkkati kàddu yooyu. ñu jugee Sénégal wutali Londres Angleterre fekk fa may sport Dele Alli la bi fësal ca xët wu njëkk wa waaye sournal bi nag fàttewul mbiru Bellingham ndax yogoon club mi tàggat club boobee démb yéy na ci ay mbiram yàbbi ca journaliste yi ñoo ko laaj mu ne Bellingham de li ma jàpp moo di ñun waa Liverpool mënuñu koo am ndax gone gi dafa seer lool joxe na sax misaal nee na gone gi gi daa ni Ferrari Ferrari nag marque italien la maanaam oto la boo xam ne oto bu seer lool la nee na nit nag buy bëgg day bëgg lu mu mën a am kon ku dégg ni Jürgen Klopp waxee rek nga xam ne waa Liverpool raxasu nañu ba set ci mbiru Bellingham ndax jàpp nañu ne mënuñu koo am ñoom nag li ñuy waajal moo di raxas seen club boobee rawatina ca milieu de terrain ba indi fa yeneen gone waaye gone yi nga xam ne bëgg nañu leen a indi soo moytuwul Bellingham du ca bokk ndax daa mel ni waa Liverpool génn nañu ci ay mbiram bu dee Dele Alli moom jamono ji lu miti lool lay dund ndax kat xam ngeen ne footballub Angleterre yaakaaroon na ko lool rawatina ba muy nekk ca Tottenham waaye dafa dem ba ci kanam rek mu am fa ay jafe-jafe dem ca Everton doxalu fa Everton able ko ca Besiktas waaye gone gi nag jamono ji lu métti lay dund ca Turquie jamono jii may wax ak yéen sax dafa blessé te club boobee di Besiktas noppiwuñu ngir téye ko kon bu saison bi jeexee day delluwaat ca Angleterre footballu Angleterre gépp a ñàkk nag moo tax journal bi nee na gone gi étoile bu daanu la maanaam biddéew bu daanu la soow mi wayul nag tuuru na ndax Dele Alli mi football yaakaaroon na ko lool waaye jamono ji nag kenn xàmmeetu ko te yaakaar googee askanug football amoon ci moom yaakaar ga yàcceeku na ndax gone gi moom yàqu na ci wàllu football muy Dele Alli te bu saison bi jeexee Besiktas da koy delluwaat ca Everton. ñu jugee Londres Angleterre wutali Espagne wàcc Madrid fekk fa Marca yéenekaay waa Real de Madrid la surnal bi fësal ca wu njëkk wa rawatina Vinicius ak Toni Kroos plan B nag tey jii Carlo Ancelotti faaw mu am ko li ko waral moo di Toni Kroos ak Vinicius daf leen di noppal tey jii ci match bi nga xam ne war na cee jàkkaarloo ak Cadiz bu 19h jotee li ko waral moo di keroog bi ñu jàkkaarloo ak Chelsea ñoom ñaar dañoo def match bu baax. te def leen soxla mardi maanaam talaata buy jàkkaarloo ak Chelsea ca match retour ba kon tey jii faaw mu am plan B ngir jàkkaarloo ak waa Cadiz muy Carlo Ancelotti waaye journal bi tamit fàttewul derbi bi nga xam ne Espagne gépp a ngi koy xaar muy derbi basque war a dox ci diggante Athletic Bilbao ak la Real Sociedad match boobee quatorze heures et quart lay door maanaam deux heures bu tegalee fukki minutes ci la match boobee di door waaye ñaari club yëpp ñoo ngi bàyyi xel Europe ndax ñoom ñaar ñii dañoo bëgg dem Europe Diop bu dee Athletic Bilbao mi dalal Real Sociedad moom ma nga ca juróom-ñaareelu place ba li mu bëgg moo di am ndam deferaat toogaayam bu dee Real Sociedad moom ma nga ca ñeenteelu place ba ñoom li ñu bëgg moo di am ndam gën a deferaat seen toogaay nga xam ne bu saison bi jeexee dinañu mën a dem Ligue des Champions wala Ligue Europa kon tey derbi boobee dina tàng jër gaañi xaar leen ko. ñu jugee Marca yéene kaay jël AS yéene kaay Carlo Ancelotti mi tàggat Real de Madrid le journal bi fësal ca xët njëkk wa saison bii ñu nekk bu jeexee ba ñu door campagne ngir waajal saison deux deux mille mille vingt 2024 ci club bi la may fekk loolu nag du samay kàddu kaddu Carlo Ancelotti la ndax journaliste yi ñoo ko laaj ci ëllëgëm mu ne bu Real de Madrid di waajal saison bi ñu dëgmal ci club bi la may fekk. li ko waral moo di contrat bi nga xam ne moo ma lëkkale ak club bi jeexagut te damay toog fii matal ko te président wu Real de Madrid di Florentino Perez it ku ma jege lool la te moom li mu bëgg moo di ma toog ci club bi wëyal Carlo Ancelotti moo yëkkati kàddu yooyu waaye tey jii nag buy jàkkaarloo ak Cadiz ñaar ñii daf leen di noppal muy Vinicius ak Toni Kroos li ko waral moo waajal bu demee ca Londres mën a jàkkaarlu ak Chelsea waa Barcelone it ñu ngi ci journal bi rawatina Araujo ak Gavi ñoom ñaar nag dañoo niro ay mbir waaye bokkale wuñu bu dee Gavi moom su fekkee Barcelone munu ko inscrit ci équipe A bi bu saison bi jeexee day nekk agent libre bu ko neexee mu dem ci club bu ko neex waaye bu ko neexee tamit mu toog ca Barcelone dem ci équipe B ba saa su ko Barcelone soxlaa futball la ko ci équipe A bi waaye bu dee Araujo moom contrat bu bees bi nga xam ne Barcelone xaatimal na ko ko mënagu koo dugal ba léegi maanaam mënaguñu koo inscrit ci équipe A bi su fekkee saison bi jeex na nag te inscrit wuñu ko ci équipe A bi loolu du tekki ne moom Araujo day nekk agent libre waaye bu dee Gavi moom su fekkee inscrit wuñu ko day nekk agent libre waaye Araujo moom contrat daf koy lëkkale ak Barcelone maanaam bu saison bi jeexee te inscrit wuñu ko ci équipe A bi tamit moom suuru Barcelone lay doon muy Ronald Araujo loolu la journal jógee Madrid wutali Barcelone fekk fa esport Gundogan la journal bi fësal ca xët wu njëkk wa Gundogan ok jamono ji nag juboo na ci lépp ak waa Barcelone doomu Allemagne bi bu saison bi jeexee contrat jeex tàkk ca Manchester City dina dem ca Barcelone xaatim fa contrat wu ñaari at ak beneen at boo xam ne en option la maanaam su fa doxalee Barcelone yokku ko ca mu wuyal muy Gundogan kon bu dara soppeekuwul saison bii di ñëw Gundogan ca Barcelone lay football waaye salaire bi nga xam ne doon na ko fayeeku ca Manchester City daf koy wàññi ngir bëgg a football foofee ca Barcelone te daanaka lépp yemb na loolu la journal bi le Robert Lewandowski tamit mi ngi ci journal bi moom nag Ousmane Dembélé da ko manqué lool ndax gis nañu ne ba mu blessé ak tey jii Robert Lewandowski ay bitam dafa wàññeeku kon doomu Pologne bi namm na lool Ousmane Dembélé ndax li mu doon dugal ci ay bit jamono ji dafa wàññeeku bu baax li ko waral nag moo di Ousmane Dembélé nekkut fa ñu jugee Esport jël Mundo Deportivo Lionel Messi Gundogan Inigo Martinez ba ca Lamine yemal la journal bi fësal ca xët wu njëkk wa Barcelone gii nag la ñuy xaar ëllëg ndax Barcelone ñoo ngi waajal saison bi ñu dëgmal te mbir yi may waajal lim la ca waa Barcelone bëgg a amal ba ca njëkk moo di fexe ba inscrits yi nga xam ne ñoo nga ca club boobee te inscrire guñu leen ku ci mel ni Gavi li ñu bëgg moo di fexe ba dugal ko ci équipe A bi Ronald Araujo tamit ñu fexe ba contrat bu bees bi ñu mën koo dugal ci équipe A bi bu ñu ca noppee nag gug Messi ak Busquets ñu song ko ndax Busquets nag xamaguñu ba léegi day toog ca Barcelone wala day wuti beneen club bu ñu noppee ci Busquets nag li ñu bëgg moo di fexe ba Lionel Messi dellu si waat foofee ñu jëlee ko ca Paris beneen bi moo di centre de formation bi gone yi nga xam ne ñoo nga fa ñu fexe ba indi ci ñenn ci équipe A bi ñu jàppale leen ku ci mel ni gone gii di Lamine Yamal li ñu bëgg moo di indi ko ci équipe A bi Lamine Yamal moomee nag li muy def mën na ko lool te football am na lool yaakaar ci moom bu ñu noppee ci loolu nag li ñu bëgg moo di fexe ba am signature yu bees tàq ca club boobee nga xam ne Xavi moo koy tàggat waaye laata loolu lépp di am nag li ñu bëgg moo di jaay ay jour ku ci mel ni Dest Umtiti ak yeneen jour ngir mën a libérer espace maanaam ngir mën a wàññi jour yi nga xam ne xaatimal nañu leen contrat te amaluñu leen njëriñ bëgg-bëgg yooyu la Barcelone bëgg a amal ngir saison bii di ñëw seen xar soppeeku. ñu jugee Espagne wutali France fekk fa l'équipe waa Lyon rawatina la cassette la journal bi fësal ca xët wu njëkk wa la bonne opération ñi ko def du ñenn ñu dul waa Lyon ànd ak Laurent Blanc mi leen di tàggat Toulouse la ñu fekki woon démb dóor ko ñaari bal ci benn ndam loolee nag am na solo lool waaye Lyon nag mi ngi noyyiwaat nank ndam loolee ñu am nag mooy seen ñetteelu ndam lu tegaloo ca Ligue bu France te saison ren bi bi mu dooree ak tey jii mosuñoo tegle ñetti ndam kon jamono ji ñu ngi noyyiwaat bu baax te nag jamono ji ña nga ca juróom benneelu place ba ñoo ngi gént dem Europe moo xam Ligue conférence la Ligue Europa ba ca Ligue des champions ndam li am na solo lool waa Lyon démb dañoo jëmbat fulla doxantu ci kaw Toulouse loolu la journal bi xam xamle ñu jugee France wutali Italie wàcc Rome fekk fa Corriere dello Sport waa Lazio rawatina Mauricio Sarri la journal bi fësal ca njëkk wa démb nag dañoo am ndam lu ama am solo moo tax journal bi nee na waa Lazio nag ñoo ngi rëcc ànd ak Mauricio Sarri mi leen di tàggat démb spécial la ñu fekki woon dur ko ñetti bal ci dara ndam loolee nag am na solo lool jamono ji nag ñi ngay dëggal seen bopp ca ñaareelu place ba bu dee Napoli mi jël pee treize points la rawee jamono ji Lazio de Rome waaye Napoli nag tey jii lay football bu 16h jotee Hellas Vérone la ñuy dalal bu dee AS Roma ànd ak mori Mourinho ñoom jamono ji huit points la leen Lazio de Rome rawee kon démb ndam li ñu am am na solo lool waaye yuufe tamit ñoo ngi ci journal bi xam ngeen ne ñoom bi ñu demee ba seson bi jeex nangu woon nañu ci ñoom fukki poñ ak juróom bi loolu amee nag yuufe defoon nañu appel mbir moomee sax le 19 lañ ko waroon atte waaye atte boobee nag dañ ko ajandeegum ba jëmmi jamono kon duñu ko atteegum loolu la journal bi xamle ñu jugee Corriere dello Sport dem Milan fekk fa la Gazzetta dello Sport waa Inter rawatina Marcelo Brozovic le journal bi fësal ca xët wu njëkk wa mbiru Barcelone ak Inter de jeexagut ñaari club yooyee li ñu bëgg moo di weccoo ay sóor bu dee waa Inter moom ñii la ñu bëgg a jëlee ca Barcelone muy Kessié Umtiti ba ca Marco Alonso waaye caabi ji nag ci ko yor moo di Marcelo Brozovic Barcelone dafa bëgg Marcelo Brozovic waaye Inter li mu bëgg moo di jox waa Barcelone Marcelo Brozovic Barcelone jox ko ñetti joueur yooyu jamono ji nag caabi ji moo di Marcelo Brozovic loolu la journal bi xamle foofee ca Italie nag tey jii ñoo ngi fay xaar match yu neex test la nag jëm ci Ligue des Champions ndax ñetti ñuy football Ligue des Champions yëpp tey jii la ñuy football bu 13h jotee Bologna mooy dalal AC waaye Pioli mi tàggat AC Milan li mu bëgg moo di noppal ay jour ngir waajal match bi nga xam ne war na koo am ci digganteem ak Napoli Napoli googee tamit tey jii lay football bu 4h jotee Hellas Vérone la ñuy jàkkaar lool Victor Osimhen mu blessé woon wér na kon tey mën na am mu bokk ca match boobee bu dee waa Inter ànd ak gi moom bu 18h45 jotee Monza la ñuy jàkkaar lool match yooyee yëpp nag tey jii la